mënoon na àtte mbir mi mu jeex benn yoon waa défense bi sax sàkk woon nañu liberté provisoire ngir ñu ñu teg loxo naam parquet bi bañu ko woon waaye àttekat bi moo ko bañ ndax ragal bu boobaa trouble à l'ordre public am ci wàllam maître ndey faatu Touré mi doon avocat wu kenn kun ci tuumal di ñaawlu ba fi ñaawlu yam li ñu bañal seen client liberté provisoire dàpp itam ni ki di Dame Amar kon bàyyeb ndëgandiku ba mu doon sàkku ba Abdoulaye dañu ko waaw dañ koo ko bañal parce que itam bu ñu fàtte ni ba bakkena rot bakkena rot si ay anam yu doy waar te bu ñu fàtte itam dañoo yoole li nga xam ne moo di loi maanaam jamono jooju ñu nekkoon su état d'urgence assorti de couvre-feu ne kenn amul sañ-sañu génn waxtu wii ba waxtu wële waaye ñoom fexe nañu génn avec la complicité de kii avec euh, par quel moyen waaye dañuy jàpp ni kon boog bu fekkee ni dëkk bi dañuy jàpp ni dafay am ñoo xam ne dañoo am daraja wala dañoo am tur wala dañoo am alal ba tax euh, yoon ñu war ko mën a jalgati damay jàpp ni yoon jamono ji ñuy wax ji addu yoon mi ngi def liggéeyam nu mu waree parce que itam ka faatu si euh, anam yu mu faatoo doy na waar te famille ñoo ñàkk te jàpp naa ni famille itam bëgg nañu mbir mi effectivement lan mu dans quelles conditions ak naka la seen doomay tàbbee foofu ba ñàkk fa bakkanam damay jàpp ni war nañu bàyyi yoon dëgg-dëgg mu def liggéeyam ka set ñu setal ko waaye itam ka laal ñu wane ni moom laal na ca. ci li war a leer itam Fatou Abdou ci bëtu Sénégal yi bokk na ci ne ñoom toppewuñu leen.